jamono jii ñu toll gouvernement bu yàlla ci njaaxat lañ nekk waxul nit ñi dégluwuñ ay xaalis bu baree bari lay ñàkk te ñun ñii di wax ak yow Mbàkke leer nañu ne tabaski gii di ñëw bu kenn jógul dimbali ñu ci mën nañoo bañ a am luñ yàlla rekk a xam bokk ceeg Mbàkke jamono jii ñuy ñëwee di wax ak yow am na ñett ci ñun ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi muy Cheikh baare Ndiaye nga xam ne fii la dëkk ci Touba gii di euh, Papa Ndiaye di Coro Diouf ñoom ñett ñëpp yoon jàpp na leen teg leen loxo te lenn donc waral mooy lañu ñu lamit bàyyee woon mooy liggéey ci jàmm ak salaam di wax nit ñi seeni naqar ñu mën koo dégg ba gouvernement faj ko ci loolu nag lañu nekk mosuñ cee jóg loolu nag moo tax jamono ji jamono ji Walfadjri dañ koo tëj nee nañ tëjoon nañ ko euh, fukki fan ba ñu waxtaan ba ñu siwaat di def suñu liggéey bërki démb wala démb ñu nañu ñu ko tëj fukki euh, weeru lëmm weer woowu nag Mbàkke wax digg yàlla amuñu luñ def jàqare nañ jooy nañ ko fu ne te loolu moo ñu tax a ñëw xam nañ ne jàkkaarloog si jëm jii rek faj na soxla bu ne waaye xam nañ ne sa ñaan mën na koo faj waaye boo jugee jël sa téléphone wala wax sa kàddu mu faju tey jii lool rek moo ñu ànd jërëjëf ñu ngi sant di gërëm neen dégg na kàddu baax a baax neen mu ngi sant ci gërëm bu baax waaw ñu sant yi gërëm bu baax mu ne allah xamee wuñ ko woon noonu waaye ginnaaw xamee nañ ko noonu dina wax dina ci taaj jóg incha allah rabi dégg mu ne dégg na kàddu yu baax te incha allah dees na ko ànd ak yéen te lépp loo xam ne mën na ko ci rek incha allah dees na ko def taxawu leen ndax xam nga ne njabootu Sidy Lamine ak njabootam lañ kon na seen xel bu a baax lii seen yitte incha allah dana ci taxaw bu baax a baax incha allah ba suñu